bismillaahi rahmaani rahiim mbokk jullit yi mbokk taalibe yi maa ngi yëkkati sama kàddu ci ndigalu sëriñ bi di jël nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo yi di nuyoob taalibe di ko jël di ko teg ci loxo Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Falilou mu tegal ma ko ci njabootug Serigne Touba gépp di leen jox sama ziyaare ak sama wàccuwaay ci ñoom di nuyu bu baax Cheikh Mouhamadul bashir mi nga xam ni mooy jëwriñu sëriñ bi moo yor kàddoom sa sa rëkk ci moom ba pare mu jox ko liggéey bi nga xam ni moo ñu fi dajale tey di ko nuyu di ko sargal di ko gërëm ci ànd bu yàgg bi ñu ànd sëriñ bi boole te mu bëgg a mat fii mu nool fukki at ba yàlla dimbali ñu ci mbaaxam ci barkeb sëriñ Touba liggéey bi sutti sëriñ bi ñëw bëgg ko ubbi may seereel mbooloo mi sama ngërëm ak sama cant ci moom di nuyu nag bu baax a baax njabootug sëñ Fallou gi yépp waaye nag di jël nuyoo bés bi di nuyu di sargal xalifa cheikh Mouhamad lamin Baara Fàllilu muy sëñ Moustapha Mbàkke mi fi toog nekk ci boppu njabootu cheikh Mouhamad lamin Baara Fàllilu sëñ Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax di la sant ci suba ba tey dama toogul fenn une yàlla seere na ko sëñ Bas mii mën na ko seere ñoo ngi ci réunion sécurité ñoo ngi ci eggale liggéey bi waaye bu ma sañoon njabootug alaaji baara gi nga xam ni mooy njaalbeenu pàkk bii ñu ne def ñu tamit ci baaxug sëriñ Touba lii ñu doon ci yoonu Serigne Touba boo ñëwee man maa lay teeru tatagal la yow ak njabootug sëñ Fallou gi sëñ Mouhamadou Lamine baara Fall ak sa bàyyi nga àndal waaye liggéey bi rek moo tënkoon ma lay xamal ni dama boole sax sama bopp ci délégation njabootug Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Fallilu ndax day jëm joo xam ni di suñu kilifa di suñu sëriñ di lépp ci ñun te duñ ko fàtte mukk ndaxte pàkk bii de damay bañ a guddeel guddal waaye du ñàkk ma sànni ci ñaari kàddu bi ko yàlla defee sëriñ Touba muy sëtu sëriñ Touba bu jëkk a toogee xilaaf ak sëriñ Touba ñu nekk ci ay jafe-jafe ci pàkk bu ñuy def jumaa ji fekk na booba plan jumaa ji pare na ñu amoon pàkk boo xam ni suñu sëriñ suñu yaakaar ba Cheikh Abdoulaye Lahad moo ñu ko joxoon 1978 muy 4000 mètres carrés nekk bàyyi ñu di fa jullee iit yi nga xam ni muy korite ak tabaski ba ñu demee ba yàlla namm ci ñu war a liggéey jumaa ji ba defar plan yi plan ba ñu defar xajul ca barab ba ñu am fa gàllankoor ndax dafa am koo xam ni dañ ko fa suul ku daan jàngale alxuraan yàlla def mu wàcc fa liggéey njabootam denc ko fa ñu am jafe-jafe yu bari njaboot gi bañ ni duñu taxol ba armeel bi président Ablaye Wade ni ma nañ wut beneen pàkk sëriñ bi di ma dimbali ba ñu gis pàkk bi bi ñu gisee pàkk bi fekk ñu joxoon ko CNTS ñu jël ko ci ñoom jox ñu ko muy 4000 mètres carrés coow la bari lool ndax ñii miinoon nañu pàkk bee bëgguñu faa jóge Cheikh Mouhamad Lamine ci baaxam woo ma guddi ni ma bu subaa dinaa ñëw xool seen mbiru pàkk boobu nu mu demee ñu xëy suba teel mu ñëw sama kër baaxe ma ko baax goo xam ni duma ko fàtte ba mukk ndax diirub li mu nekk xalifab sëriñ Touba ñëw na sama kër ñetti yoon kooku duma ko fàtte ma ànd ak moom yóbbu ko ci pàkk bu jëkk bi mu xool pàkk bu jëkk bi mu nekk 4000 mètres carrés fekk na booba ëtt bi defar nañ ko lay ko mu rafet lool ma tiit ci sama xel ndaxte booba xam naa pàkk bii ni mu mel mun ma beneen bi fu mu ne ma ne ko soriwul mu ni ma nañu ànd ñu dugg fii booba bunt bi fii la nekk waaye mënoo ñoo dox sax fukki jéego ndax ndox mi bari na berax bi bari na te lëndëm na man rek a xamoon fi pàkk bi yam waaye dafa dugg wàcc ci oto bi ni ma ana barab bi ma ni ko fii la mbakke waaye bari na ndox mu taxaw xool ba si yàgg ni ma mbàkk ma ne waa mun ma barab baa ngi nii fii la ma ni ko ahadi fii dem Mbàkke bari na ndox mun waaye fii la de ma ne ko alhamdulilah ma ne ko ndox mi nag ma ne ko ndox mi nag mbàkkee mun ma mee ndox du dara jële ko fii ni ma tey la lan lan ban weer la ñu ne ma ne ko ñoo ngi ci tëbaski gi mu ni ma ñaata fan ci des ma ne ko fukki fan ak juróom-ñaar mu ni ma na nga fi jëlee ndox mi te ngeen jullee fi tabaski te bàyyi pàkk bële bi ma ko waxee mu yomb yomb goo xam ni fukki fan lañ ci teg mu mel nii noppiwul ba tey jii kon moom gisoon na pàkk bi ndaxte pàkk bi dencub sëñ Touba la woon damay waxante ku baax muy sëñ Isaaxa Mbakke mu ñëw ma koy visité loo di ko ko nettali mu ni ma xanaa xamoon ne ndox moomu moom la sëñ Touba nëbbee woon pàkk bi ba kenn mënu cee jublu ndaxte terrain bi ñun fi lañu ñu màgge fi la ñu fowe mu tuddoon terrain foyer doon ay garage u mécanicien ay baaji naar yuy wulli ay der ak ay tool waaye kenn musu ko moom mu tuddoon sëkk bi lébu yi di fi julee mujj ndox mi dàq leen ñu dem ci park à Majout booba ba léegi kenn moomu ko kenn musu ko moom nga xam ni Serigne Touba ay mbiram kenn xamu ko yàlla dogal ci mbiru àddina ma jëkk a nekk maire ci localité bi gis pàkk bi rek ñu koy occupé mu bari mécanicien ma xëy ni dama koy déguer pire booba Abdourahmane Sow mooy ministre de l'intérieur mu ni ma mënuloo ko ndax lii man naa indi fitna ma ne ko jox may alkaati rek mu jox may alkaati ma déguer pire leen ndekete booba xaw ma sax li may def ndekete booba Serigne Touba moo ma yebal ci pàkk bi pour ma commencer ko nettoyer ndekete booba lii rek la ma bëggoon a liggéeyloo loxo ki mu jaar nag ba tey jii ma mën a defal sëriñ Touba dara loo xam ne lii maa ngi ñaan yàlla Serigne bi nungul ma ko ci loxo Cheikh Mouhamed Lamine Bara Fallilou la jaar kon jooju jëmm duma ko fàtte mukk ci àddina waaye nag xam naa ni maamam ju baax jooju moo ko ko sant mu defal ma ko waaye wolof day wax ni kéwal bu lekkew aloom na ko gërëme cooy man sama lépp ci Cheikh Mouhamad Lamine Bara Fallilu la jaar may gërëm Serigne tuubaa di ko sant di ko gërëm di gërëm njabootam di gërëm njabootu Serigne Touba dañuy faral di wax ni dañ may gërëm liggéey bi man doonuma ci dara Serigne Touba moo liggéey liggéey bi moom la ko yàlla fayee ndax ku xool liggéey bi ni mu mel ak jafe-jafe yi mu mel ak ni mu gaawee ak nii mu taaroo moo lay won ni dañoo nekk ci kanam rek mën ak sëtam bu baax bi waaye liggéey bi sëñ Touba ko liggéeyal boppam ndax amul lenn loo fi gis di wër àddina bi ci jàkka yi ak jumaa yi ñu copier ko fa indi ko fi loo fi gis see original loo fi gis rek c'est original kon bu ñuy gërëm kenn la ñu war a gërëm bu ñuy sant kenn lañu war a sant muy Serigne Touba jërëjëf sëriñ Touba sëriñ Touba yàlla nañu ko yàlla gën a fayal ndaxte ñun suñu tawféex mooy Serigne Touba ndaxte mënuñu ko wone a ñàkk waaye Serigne Touba pexe mënu cee jotale nit xel mu rëy mënu cee joxe jotale nit. li ci mën a jotele nit nga bokk ci mooy ndimbalu yàlla mooy tawféexu suñu borom kon tawféex ji ñu yàlla jox ba boole ñu ci sëriñ Touba mënuñoo sant sans borom ba jot tawféex loola. kon sëriñ bi maa ngi jéggalu bañ a guddal waaw maa ngi yemele foofu kàddu gi di gërëm. tamit délégation gouvernementale bi nga xam ni suñu xarit Ismaïla Madior Fall moo ko jiite di ko gërëm bu baax di ko yóbbee yóbbante tamit ci président de la république pàcc bii bi ñu ko président Ablaye Wade joxe mu jafe lool ñu tàmbalee liggéey bi yàlla indi fi président Macky Sall ñu am ci biir projet bi ay projet ci biir muy tali yi di làmp yi la jël engagement ni dinaa leen defaral tali yëpp defaral leen làmp yëpp te loolu 7 milliards de francs lay jar kon boo leen demee ngeen santal ñu ko ndax munuñu koo ñàkk waaye nag moom boobu ak président Ablaye Wade mi ma tudd ci pàkk bi ñoom ñaar ñoo ñu ñoo war a sant Serigne Touba président Ablaye ak président Macky ñoo war a sant Serigne Touba ndaxte lii ñu doon bokk na ci sabab li Serigne Touba bëgg dara ñu ñëw def ko réew mi moo gën a tuuti ci àddina Sénégal réyul deux cent mille kilomètres carrés la population bariwul quatorze million la kon tuuti na ci àddina ci tolluwaay tuuti na tamit ci ñu ko dëkkee te Serigne Touba yàlla àddina la ko jox àddina la yàlla jox Serigne Touba kon ku yàlla xiir ak koo mënti doon yàlla xiir ci la nga yëkkati yëkkati bant jublu ci liggéeyal Serigne Touba yow yaa war a sant Serigne Touba ndax sëriñ Touba bi muy ñëw Ndakaaru fii muy ñëw fii ci barab bi ñu ko fi indi jële ko ci ay mbokkam ci taalibeem booba tubaab bi ku mu neex jëfandikoo ci yow booba la colonisé est corvéable et traitable amul juste jugement amul droit de l'homme booba amul xamuñu ko on est colonisé corvéable et traitable tooñ ko indi ko fi muy ñaari guddi yu muy ko ba tey ci cellule boo xam ni taabal jiyee ko ëpp un mètre cinquante sur de mètres mu ànd ak ngorom nga jomam nga fiitam wa ak bëgg liggéeyal suñu boroom ak yonent bi sallallahu alayhi sallam xamoon nañ ni yàlla dina ko faye ndakaaru lu mel nii kon xamoon nañ ni yàlla dina faye Serigne Touba lu mel nii moo tax terrain bii bi ko président Ablaye Wade di joxe ma ànd ak président Papa joob ñun ñaar rek a xam ni terrain bi demee ba tey jii kon bon maa ngi yemale foofu sama kàddu di wax ni nag am naa yóbbante bu jógee ci sëriñ bi bi ma koy wax sëñ mo Cheikh Mouhamadoul mi ngi toog dafa ni fii liñ fi dajale mooy fàttaliku lan lañuy ñuy fàttaliku jaamu yàlla gu rëy goo xam ni gii jaamub yàlla moo wéetal yàlla wéetal goo xam ni kenn mësu ko ca fekk liggéeyal yàlla liggéey boo xam ni kenn mësu ko fa fekk ba yàlla di ko fay pay goo xam ni du dog ba yomal xiyaam buñ fi dajaloo di fàttaliku loolu defal ko fi néeg bii nga xam ni sëriñ bee jiitu ci kanam ànd ak ñun taalibe yi ñu liggéeyal ko sëriñ Touba amuñu lettre bu ñu yóbbu bitim réew amuñu fondation bu ñu financé sëriñ bi rekk a jiitu ànd ak taalibe yi ñu di ko jox mu may jox ñu di ko def ci bati ci jumaa ji ba mu mel nii kon na ma ko waxee woon koo leen fi gis ku ne ma war a sant sëriñ bi sëriñ bi nag nee na li nga xam ni mooy solo yi daje bi mooy fàttaliku jaamu yàlla googu fàttaliku ñaari guddi yooyu fàttaliku coono boobu mu ngi wax taalibe yi ni leen fii yar la fi bëgg ak teggin ak fàttaliku sëriñ Tuuba ak jaamu yàlla ak tamit dalal ko ganam yi nga xam ni fu ne dinañ fa jóge bugg fuñ fi dara fii kenn du fi doon dara ki fi doon dara kenn la rek mooy sëriñ Touba te moom lañu ñu mën a fàttaliku. bëgguñu tàccu bëgguñu yuuxu bëgguñu dara bu fekkee ni tàccu am na kenn ko moom muy sëriñ Touba bu dee mbégte sëriñ Touba bu dee fittasu sëriñ Touba sëriñ bi nee na nag ku loolu dinga nga daje ak Serigne te bëggul taalibe kenn daje ak merum san kon yóbbante baa maa ngi jégalu. bu kàddu yi dëngee maa ngi jéggalu tey jéggal ñëpp te ñaan ñëpp jéggal ma ñun ñëpp lenn la ñu bëggoon rek Serigne tubaa am ndam te Serigne Touba amate na ndam comme maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.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 lépp lu baax rek ci biir dëkk bu sell bii di Touba la jëm si waaw société Touba xéewal karo firnde la ci kenn jéggaaneetul lu jëm ci wàllu karo rawatina luy taaral seeni dëkkuwaay société Touba xéewal karo nekke fii ci Touba ndaam dend ak station Elton bi gérant bi di ab lay Kébé